Oui, nous ngi lay effectivement tout le département de Tiawan s'est mobilisé comme un seul homme pour accueillir le président Alioune Mamadou Dia euh, on n'a ménagé aucun effort Nous avons donc ñëpp mobilisé mobiliser depuis le matin parce qu'on nous avait dit que le président allait être là à 10 h donc depuis 10 h actuellement il est presque 19 h on est là toujours à attendre le président parce que c'est ce que nous avons en fait parce que le président Alioune Mamadou Dia moy l'homme qu'il faut pour le Sénégal C'est comme ñun Sénégal mo ñu ñor donc lool que nous tax ñu mobiliser derrière mom diko xaar xaar tout wone tout est derrière lui té que moy borom derrière oui. góor j'ai envie de dire que depuis le 3 février ba terrain vous n'avez pas levé pied entre temps indi ngeen fi projet 4-4 nit ak naataange comment le projet a été accueilli par militants yi nga xam ne a ngi VAD di leen seeti. Euh, ils l'ont bien accueilli man damay wax toujours né képp koo xamante ne ni programme ngay wax ne moom moo lay convaincre wala profil moom moo lay convaincre wala expérience moo lay convaincre ce qui est sûr mooy que ne boo jëlee profil wala programme candidat Aliou Mamadou Dia tu seras convaincu keneen ko nga xamante ne nii ci beneen approche nag ngay utiliser. ngay utiliser yow pour pour tànn peut-être mën nga tànn neneen mais képp ko nga xamante ne nii da ngay dekk euh, de manière rationnelle ngay choisir Aliou Mamadou Dia mooy le candidat qu'il faut de par son programme de par son profil

Euh, Senegal, ñun ñëpp ñoko bok té damay wax né képp ko xamanténi ni encore une fois li nga programme bi wala Sénégal ñor la mëno am benen candidat bu dul Alioune Mamadou Dia. donc lool moom moo tax peut-être les politiciens yi nga xamanténi dañ leena min ñuy def politique depuis bok ci système bi ñu décrier leen depuis ñoñu nonu mën nañu baña ñëw ànd ak Mamadou Dia parce que ñom dañuy am tendance ko ñuy andal dañ la lan lay am ñun nak yoruñu lu ñuy seddo lu ñuy défar lañu yor am réew la xëccowuñ ko liko ko Mamadou Dia di waxé dañ koy laaj. donc amul benn compromis wala compromission bu ñuy def ak kenn xayna lool loolu moom tax leader yi nga xamante ni mi nañ leen ci champ politique bi ñu nek ay chef ay politiciens xayna du mën nañ am rallier wuñu la coalition AMD 2024 mais ñi nga xamante ni nii Sénégal moo leen ñor ak fu ñu mën a dañuy rallier la coalition Aliou Mamadou Dia lool moom tax gis nga cérémonie bi on a eu 80 alliés yu nga xamante ni c'est des mouvements c'est des gens yu nga xamante ils ont eu à participer à des élections am ay scores yu mémorables donc fi ci département Tivaouane nous avons fi Ousseynou Ndiaye boo xamante ne nii moo Taïba Ndiaye bu ñëwé tay Taïba Ndiaye ce qui est sûr que le PUR va gagner largement les élections au niveau de Taïba Ndiaye on l'a aussi au niveau de Ngandjouf, on l'a aussi au niveau de pas mal de communes au niveau du département donc loolu nonu moy avantage bi nga xamantene ni PUR amna ko par rapport aux autres candidats on est à 9 jours de l'élection si toutefois dina am parce que xel yaa ngi jiixi jaaxa mu mel ni la confiance ak li nga xam ne mooy moral moom mës a non du faiblir parce que ñun dañoo am yakine bu wér bu élection amé le 24 Alioune Mamadou Dia nek 5e président donc heure bu ñu xëyee dañuy am benen énergie bu nga xamante ni bu bess la gëm-gëm bu bess, bu nga xamante ni ak motivation bu bess. loolu mom moy tax suñu volonté day gëna a yokku rek ci. gëm-gëm bi nga xamante ni am nañ ko Alioune Mamadou Dia bu élection amee le 24 bii li tendance yi wane li sondage yi wane mooy day jàll premier tour nekk le cinquième président de la république du Sénégal. yaa ngi fàttaliku benn anecdote ça va sûrement te faire rire bi nga demee Walf Penco ñuy wax Alioune Mamadou Dia muy kan pour l'instant ni on dira plus mooy kan. non waaw moom laay wax barki démb ma ne yàlla bu bëggee defar day mel ne kuy yàq Alioune Mamadou Dia jël moom mel nu moom nekk ci terrain bi sol tenu commando war a commander toute la toute la population donc ça a dit long donc il fallait que lolu am pour que ñi doon wax ne xamuñu ko dootuñu xam lu wax Mamadou encore une fois c'est l'homme qu'il faut c'est le candidat qu'il faut pour redresser ce pays pour développer le Sénégal et on espère que sénégalais ils vont prendre conscience parce que li bu leen rëccee tournant bu décisif dina leen euh, euh, euh, actualité politique wala ci histoire politique donc ñi ngi tànn dal loxo toute la population de Tiawan dans de tous les sénégalais les ñu de à diaspora que au soir du 24 mars nous devons dès les premières heures voter massivement euh, la coalition AMD 2024 pour ko avance heure bi Alioune Mamadou Dia nekk le cinquième président de la République du Sénégal. allez moi préfecture bi ba léegi carte d'identité carte électeur yi ñoo ngi fi di nelaw loolu tamit message de sensibilisation à l'endroit des jeunes surtout ñu dem effectivement parce que élection le quoi qu'on puisse dire ay carte ñooy fal ñooy donc ku bëgg ku bëgg à jàppale moment Mamadou Dia ku bëgg am ton mot à dire. par rapport à ce qui se fait dans ce pays là il faut que nga dem jëli sa carte donc nañu dem jëli carte yi bañ a xaar dernier moment parce que commission baa ngi effectivement man dem jaar naa pour am yu ma doon déposé mais da ngay xam ne carte d'identité yi ñi ngi fay des ba léegi nii donc ñi wax ñëpp ñu dem jëli seen carte d'identité yi mais ñu denc ko fu wóor ba bu bis ba jotee ñu dem voter Aliou Mamadou Dia merci beaucoup